ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision wog bi nga xam ne moo di Bawal TV mercredi le 4 janvier ci atum 2023 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekk di fay affiche am solo Baye Mor Ndiaye coach su Songane Gueye la mu xamle moom moo di Sarko moo man moo ëpp doole Ada Fass journal sunu ko ci kaddu yi Baye Mor waaye plus de six millions francs CFA yoo xam ne nii ñoom ñaari mbër day ñàkk nañu ko ci mooy sanction ya ci nekk ci ñoom ñaar la nga ñàkk ci combat bi xëy na xaatimal la ko Boy Niang de ñàkk lu tron lu ci trois millions cinq cent soixante mille francs CFA de le lion de Guédiawaye deux millions quatre cent waaye ba tey journaliste bu xëy di ñu xamal ne moom Boy Niang moomee day ba tey dafa noppi de la mu xam le daal moom moo di Balla Gaye 2 est eh, un vrai champion la Balla Gaye 2 la kenn mënul bañ champion wu ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye 2 te moom Boy Niang 2 moomee dafay sant bu baax ak gërëm ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye 2 ginnaaw bam ko nam goo way li nga xam ne nii moom moo di sansam ngir ñu ñoom ñaar ndax ki nga xam ne nii moom moo di Fallou Ndiaye nar a ñëw le 8 janvier ci atum 2023 foofee ci arène nationale diggante ki nga xam ne nii moom moo di Bulldozer ak Thiat Yoff journal Sunu Lamb bu xëy di ñu xamal ne day e sera un journée inoubliable journal sunu lamb ba xëy xamal ñu li mel ba tey journal sunu lamb xëy andi ñu open press ne nii mu ko doon amal ni ki démb journal sunu lamb ci xëtam mu yaatu nañu image ngi noonu xool ba doyal du ngeen fay dara yéen koy suivre lamb actualité ba tey journal sunu ba xëy ne na ko faram fàcce ci xëtam mu yaatu yaatu waaye Sarko Ada Fass duplex lay doon c'est vendredi journal ba xëy xamal ñu li mel Boy ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay fonsam waaye ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye de surnaal surnaal bu xëy di ñu xamal ne le roi de Guédiawaye waaye ki xam ne nii moom moo di dégool day mbégte kontaan rek la am ci victoire boobee nga xam ne moom la doomam am di Boy Niang do waaye ba tey ki xam ne nii moom moo di Balla Gaye de ga nga continuer di jéggulu ñi nga xam ne nii day ñoom ñoo di ay xam ne moom moo di Boy Niang open press chat yoo ça se fait hier démb la woon journal journal bu xëy xamal ñu ne tàng na jër te neex waaye réponse ki xam ne nii moom moo di Bulldozer tey jii la koy amal moom itam li nga xam ne nii moom moo di open presse am lamb ka ñu fay fekk moom moo di Boy Niang 2 la ma xam ne moom moo di waa dama rëbbi woon gaynde géejawaay te gaynde ga day fàdd naa ko mu daanu gaynde ba xam fàdd la ko xamee waaye tey daal ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang di càppaacoli gi moo dem xam ne ni moom moo di ca Pikine yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb tey di ko suivre ci télévision bu mag bi xam ne moo Bawal TV du de kenn bu ma topp waaye ku jooy dëpp le ko de la kees xombal bambayal tundangal mak sew kabak laañaar kër daama kër sayer jàll ndulak pataar kër yibra yaa sin sambe ngewel sambe kool dala ba daaru xafoor siyaare sëriñ ba dellu siwaat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta Jolof ñëpp ak Baol TV lu waay waxadi waxadi Assane Ndiaye andi ñaari A ak B andi dëkk ki nga xam ne nii moom moo di Bébé Diène ak Gàkkudo ñu ne ndax fa la yem mu ne cinq spécial la teg moom Assane ki nga xam ne nii l'homme de ambiance l'homme de régulateur waaye ki nga xam ne nii moom moo di l'homme de tous les sortes au niveau Sénégal moom Assane Ndiaye l'homme d'organisation moom Assane Ndiaye moom le journal Sud Lamb ba xëy di xam ne ne day le 11 février ci atum 2023 ak Bébé Diène Gàkkudo ci arène nationale combat la budul yomb mbokk yi ba ngeen laaj ma leneen.